jiital ONG 3D ne débat bi ci mbiri chef de l'opposition benn teel na ba ca des lu dangereux la colonel Abdourahim Kébé moom ne ak lu ci mën di am daal opposition dëgg moom du toog rek ne yàcc di xool nguur gi déroulé ko doxalee nam ko neexee ci le témoin boroomi xam-xam yi di professeur musa jaw bu université Gaston Berger bu Ndar politologue yi di ma Mamadou Sy Albert ak Momar jong di dànkaafu ci tas gu parti yenn yi mën a tas seen biir ndax xeeñ tuy ngëneel ak i avantage yooyee ngëneel ak i koppar doon dëgg sërëx gi ak l'opposition waral Moundiaye Cissé bi yoon ci la tribune ne danoo war a sax rey enjeu financier bi ci mbiri ndax nag fileeg mbiri koppar mu ngi lalu ci doxalin yi xaajaloo du ñàkk ca sax wax ja jotagul ndax ci dialogue politique bi leeral nanu ko ci ne loolee ne statut de chef de l'opposition duñu ko doxalee du entrer en vigueur lu mooy gannaaw élection yeneen yi ñëw la tribune jàppee mbaqusub Macky Sall boobee di chef de l'opposition ak budget lu ëpp ñaari milliards cadeau bu ñu posene wax ji nag lëj gumul lëj waral les échos jàppee ko patate chaude ne waxtaan yi sax ñel ponk boobee ci dialogue politique bi dañ ko foofu dàq ba ëllëg Sud Quotidien mel ni ku naan opposition boobee yéen toog leen foofu ndax di doog ngaayo président Macky Sall moom di dajale ca palais ba équipe di staffam ngir waajal élection mairie yu département yi meneenum ndaje bu mu amal ca palais ba moom président Sall di bu soxal wàllu koom-koom ak investissement yi jëm ci pôle urbain bu jam ñaajo Le Soleil ne juróom-ñetti projet validé nanu ko ca ci valeur u ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñu waxtaane wàllu wér-gu-yaram ak ma ci ku ñàkk bakkanam Sénégal yi wàññiku waral yéenekaay bi di laas jàpp ne yaakaar mën na am observateur moom la muy tiit mooy nit ñi gën a wàcce loxo yi ci boobépp xeex ndax ci gëstu yéenekaay bu groupe Futurs Médias seetlu gi ci marché bi mooy business ba waroon covid 19 bi daa wàññiku la muy tekki mooy nit ñi lañ daa fagarooy jëndi masque ki gel dafa wàññeeku bu baax docteur Ousmane Gueye njiital SNEPS ba tey observateur naan ci jamono yi nag du jamonoy négligence waaye jamono yokk parlu gi la ak moytu gi lu ko mooy virus bi dal di yokk moom ak tasaaroom ci biir penc mi docteur Gueye ne ña ngay wéyalaat nag liggéey bi ak askan wi ngir ak jógaat ak it ak takkuwaat docteur Ndak Diop moom dib socio anthropologue ne wàcce googe askan wenn ci loxo yi ci xeex bi du Sénégal rek ca nag mu ne lu normal la ndax ñi daa jog ci njëlbeen di wax bëgg a feeñ ak a jëf danoo mujj xam ne yëf yi du xelu ci distance yu gàtt waaye ci jéego yàgg la maanaam du course de vitesse course de fond la ca nag mu ne ki gën a dékku mbir yi gën a muñ mooy yeggale course bi étudiants yi nag war a gën a defarwaat ci boobee course ak moytu gi ñeel coronavirus vox ne démb dellu nañ ci daara ya fu ci mel ni université Cheikh Anta Diop Ndakaaru waaye fii ab pëccëxoo la woon waa ndar ñoom ca saanaar wan ginnaaw ubbite gi teg ca naan dañuy ngénte tubaab maanaam di lekk ci restaurant yi ci luñ dul fay dërëm di rëb ñetti fan sax 72 fas yéene def ñu ne lu ni mel le quotidien lu jëm ci tàmbali waatuk njàng mi ci daara yi kawe yi Sénégal gis ne faux départ da caa am fu ci mel ni Saint-Louis ak Bambey source a xëye moom wàllu napp mi ak fayantoor gi mu gis diggante ministre Aliou Ndoye ak Sayer Seck la fukki fukki boromi kër yu ne ci chômage technique ndax ñu ne ñàkk gu bato buñ daa daane seen doole ñàkk licence ngir liggéey ministre yi nag am na ku taxaw dëkk président Sall lànk def déclaration patrimoine libération ni waxee xamuñu nag ñu nekk na waaye ci fanweer ak juróomi ministre fanweer ak ñeent ya dong ñoo dem ca OFNAC def lu ni mel nag sax moo xamle lànkuk ministre boobee donte waxuñu tur wi yenekaay bi nag di libération njortu ne bu moywul ay daan fekk ko ca su amulum ngante dëgg lu ci mel ni wopp ak yeneen